que le top management de PASTEF se retrouve en prison usman euh, Ousmane Sonko empêché euh, reclus euh, chez lui euh, El Malick Ndiaye dans le circuit judiciaire le juge a requis le mandat euh, de, de de dépôt biram Souleye en prison Bassirou Diomaye Fadilou Keïta c'est une situation exceptionnelle waaw euh, lu mel noonu defe naa ne gëj nañ ko gis Sénégal bu ma fàttalikoo euh, yi Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf am na euh, ay jàppante yu ñu fi jàppante woon ay atum 1993 wala 88 boo xam ne am na kilifa yu bëri yu bokkoon ci PDS yoo xam ne dañu mujjoon nekk ci kaso bi après l'affaire Maître Babacar Sèye euh, donc tey bu ñu demee ba euh, parti bii di Pastef ñu bëri ñu koy jiite euh, nekk ci prison bi nekk ci kaso bi war nañ poser wu ay question est-ce que dañu singili waa Pastef wala waa Pastef ñoo def loo xam ne dafa war a tax mën leen a jàpp defe naa ne buñ jëlee ku ci nekk au cas par dinaa ci wax mais boo ko jëlee global mi globalement nii dafay donner l'impression que simplement dañ leen singali ñoom euh, te defe naa du waa Pastef rek ñooy def politique Sénégal am na ñeneen ñuy def politique Sénégal donc bu ñu jëlee